ma tey ma jaaloo di jaaloog jaal ba jeelu ci jaal fa yaasin ki lay jara way ki lay jara ndax di neexal di jox li bi door ba dee sula door fa yaasin ki lay jara woo di jox piti ceen ba duu seen ki lay jara woo di jox piti ceen ba doo seen ba dee sule ceen ba kindi le seen fa yaasin ki lay ma jal jaari bakkan baam kun ba wax ju ma wax di kun fa yekkoon fa yaasin ki lay ma jal jaari fetal yu naan tëf baraw iti leer ngir wuti leer fa yaasin kilée ma jaral ma faf engagé ay at ba engrais ba xarma dem engrais ba yaasin kilée ma jaral fa se salma walay laa wa indul ndax ma denc ko am ci yaasin ayaa jal ma ba waay nanu sayta bombo malaat sa yaram bi ndax nga yaram ma yaasin ayaa jal ma ma waay sa bakkan bi muuñal tawal ma sa xar kanam bi te xool ma yaasin dama sob waaye jom nga sax sa moom kem di waajo xamul xamal ni xamul ba yaasin ma jóg nu fesati wala de fekk ba may dee na ngeen ma ko seere maa ngi jaala yaasin te maa ngi ci jaal ba nu may jaari dee soo ma jëlu mbindeef ji ma yal fa yaasin defu ma wax la ma dellu fi wax xibaar yi ma xam ci yaasin ma ne su ne lim nga ne nii ma xam ci yaasin walaay sama bët gisul sama nopp déggul te xel mi dajul ku mel ni ki jaala yaasin amul ci malaaka sa kaniti ba jinin te bàyyi ma ak ñanaayu di ñu mel ni yaasin te malaa ñaa ko mul ko laaj ko ma la ko turan ba laaj ko bëru muit ku mel ni ki yaasin ñu naa ma amul ci gaa yu wente ba woon te ñuy bëgg ñoo xamee su ci maasa yaasin ma laaj ko fa ardu sim simatun ñu dul dee ñu naa ma amul fii kenn fu mel ni yaasin fulaak jaag fulaam jaag faydaam ji ma xam ci yaasin gisee fu ko woon te aadama mooma yaasin fulaam jaag faydaam ji ma xam ci yaasin gisee fu ko woon te aadama maama yaasin fi tam ma xam du jàq du rëdd du saalit ku weddi nga laaj ko jibril xam na yaasin ngorom gaag maanu gaag bari bay da am jom yaram gaag taar ba ñoo booloo fa yaasin xaya maag xelam maag xay gaag sambali gaag na mu jëf saban sa ñen jaar jaar jële jaade yaasin ku jooy ji ma jaal mu fa rango ya muy ree ko rafle mu woo du faj say aajo yaasin te moo manu gan ganam du tawat du jàmbat ku teew mu teral ku wuute mu sedd yaasin ku xaar mu xaral la xar baax jox la say dab nga fuuy ni góos yi sedd mel ni yaasin ku wopp mu faj ku faatu mu yóbbu tuuba mu sol ci naari ram mu ñoñam fa yaasin fu tuuba suma tuuba suma tuuba ñeen ku sopp ban ba te sopp yaasin ku sopp Bamba te sopp Yaasin suma tuuba suma tuuba ñeen na ku sopp Bamba te sopp Yaasin suma tuuba suma tuuba suma tuuba ñeen na ku sopp Bamba te sopp Yaasin
suma tuuba suma tuuba waaw ñeen na ko sopp Bamba te sopp Yaasin fa tuuba suma tuuba suma tuuba ñeen na ko sopp Bamba te sopp Yaasin fa tuuba suma tuuba suma tuuba
tuuba ñeel na ko sopp Bamba te sopp Yaasin
suma tuuba suma tuuba ñeel na ko sopp Bamba te sopp Yaasin
fa tuuba bamba te sopp yaasa
summa tuuba summa tuuba Mbakke yéen a ko sopp Bamba te sopp Yàlla.
fa waylun summa waylun summa waylun ñeel ku noonu bamba te noonu yaasa ceyli summa waylun summa waylun waylun yéen a ko noonu Bamba te noonu Yàlla.
fa waylun Aha.
summa waylun summa La ilaha waylun illallah.
ñeel ku noonu bamba te noonu yaase Ah, ثم ويل ثم ويل waylun لنا ظنان بمتنا يا
waylun آه.
suma waylun suma waylun ñeel na ku noonu bamba te noonu yaasin su doon fas course man teg naa ci yaasin su defoon ab course man teg naa ci yaasin première baa ngi maa nomee jàlle yaasin su doon ab course man teg naa ci yaasin première baa ngi maa nomee jàlle yaasin su defoon lamb yow jàll yaa di sambar dabal dóoral ñi bañ seex bamba yaasin su doon wote maa la jox sama carte xol bi nda yow say candidat nee na wii wa yaasin su doon wote maa la jox sama carte xol bi قلبي nde yow say candidat nee na wii we yaase
لك السماء كان قلبي xalbi لا يوصل يوصل لداني يا
la jox sama kaartu xol bi مصطفى nde yow say candidat nee na wii we yaase
لك السماء كان قلبي
Rasulullah nde yow say candidat nee na wii we yaase Rasulullah nde yow say candidat nee na wii we yaase Rasulullah nde yow say candidat nee na wii we yaase Rasulullah nde yow say candidat nee na wii we yaase nde yow say candidat nee na wii we yaase nde yow say candidat nee na wii we yaase maa la jox sama carte xol bi nda yow say candidat nee na wii wa yaasin te songal mbër yi jàggil daana joggil ñi fiy kontar Serigne Touba fa yaasin su ngeen dégloo ma wax leen tey ci yaasin lu ngeen xamuloon te xam-xam yées na yaasin terub taaram ba jaamunu taar ba ay at terub taaram ba jaamuna buur ba yaasin waxandaanaan ko jagleen daal جمالا من جمال الليل يا زين. يا جمالي. جمالا من جمال الليل يا زين. جمالا من جمال الليل يا زين. جمالا من جمال الليل يا زين. جمالا رسول الله جمالا من جمال الله يا
جمالا من جمال الله وعلى آله قدم لن سات سيد مولد مولانا جمالا من جمال الله لن قدم لن جاد مولد يا مولد جمالا من جمال الله يا آلاء وغنالا قدم لن سات من مولد سيد مولانا جمالا من جمال الله يا
من طابقنا لن قدم لن جاد مولد زيت مولد جمالا من جمال الله يا آلاء وغنالا قدم لن زيت من مولد جاد مولد جمالا من جمال الله يا زيت فقلنا لن قدم لن تجمع زيت مولد جمالا من جمال يا آلاء
وغنالا قدم لن زيت من مولد زاد مولا جمالا من جمال الله يا زيت فقلنا لن قدم لن تجمع زيت مولد
جمالا من جمال يا آلاء جمالا من جمال الله يا زيت جمالا من جمال يا آلاء جمالا من جمال الله يا زيت جمالا من جمال يا آلاء جمالا من جمال الله يا
والله زيت جمالا من جمال يا آلاء جمالا من جمال الله يا زيت جمالا من جمال يا آلاء nit ak gineen ñi malaaka ñëpp daa bon ها nit ak gineen malaaka ñëpp daa daw di war leeram nga ay ateet ba yaasin nit ak gineen malaaka ñëpp a xooloon di taas ca leer ga newoon te la sal ba yaasin keroog la jàpp ci morso ca taar bu xàllar tasaare ko tuur ko séddale gaaye yaasin keroog taaram ba lañ tuur uuru ay nii ba tax duñu faatu ngir taar bii ba yaasin te jongoma yooye ñoo di borom tiitar ña ngay taaro ca àjjana daaru yaasin te benn kawar ci ñoom bu rotoon ci dunyaa nga jañ loog leeru peero aral fa yaasin keroog taaram jigéen di lu uuro ay nii la jongoma yi di taaro fa yaasin ca leerub jàll aadama leeri noonu ba tax iblisu noonu ko noonu yaasin ma wax leen taar ba ma wax leen na taar ba seetlu ko ca baawoon ba tér ba rayaat ca aadama maame yaasin serop taaram la aadama maam ja lamboo ba yàlla ne as judoo ngir leere yaasin waxanaa leen ko dem leen seeti mawle
سيد مولانا jamaalan min jamaali leere yaasin وقلنا لن قدم لن تجد مولد seeti mawle جمالا من جمال يا آلاء waxanaa leen ko dem leen seeti من mawle جمالا من جمال الله قدم ليل زاد مولد وقلنا لن قدم لن تجد مولد جمالا من جمال يا آلاء زيت مولد زاد مولد جمالا من جمال الله يا
جمالا مولد
من جمال يا آلاء وغنى قدم ليلة مولد مولد.
جمالا من جمال الله يا زين dem leen seeti Maodo jamaalan min jamaali leer yaasa seeti Maodo taaram la àjjana sax di taaroo di taaloo lamp gaasem yi biir na yaasin terop taaram bala ibrahima naanoon di woo ko bagaay nemroos naa ko yaasin terop jaaram terop jaal moom be fay sawaraamo bardan ba jalte fab salaaman ngir ga yaasin terop taaram ba melax na ca gaalu noon ci bismillaahi mujjire aani yaasin labal noonam ya ak doomam jëm ni ërkëb ku bañ Seex Bamba du war gaali yaasin waxanaaleen ko dem leen seeti Maodo jamaalan min jamaali leer yaasin seeti Maodo waxanaaleen ko dem leen seeti Maodo jamaalan min jamaali leer yaasin seeti Maodo labal noonam ya ak doomam jëm ni ër këpp ku bañ Seex Bamba du war gàllul yaasin keroog taarama la Moussa Njame sangoo ba muy dem tuuri Sina gis na yaasin keroog taarama la xotti ja baxaru xalsoomin labal Firawna tasxaaroo na yaasin keroog taarama ca teex bala yàlla di yoxoon ca ko ayooba rag ga wen na yaasin waxdaalaar ko dem leen seeti ma la ilaha illallah jamaalan min jamaali leer yaasin seeti mawlid waxoolaalaar ko dem leen seeti mawlid jaalan min jamaali leer yaasin seeti mawlid جمالا من جمال الإرهاز جمالا من جمال الإرهاز جمالا من جمال الإرهاز جمالا من رجلنا جمالا من جمال الرياض رجلنا جمالا من جمال الرياض جمالا من جمال الرياض Seex Taaramba la delloo taal boromam ba neex ma laab du feeñu ko ngir ga yaasin tero taalama ca teex bala tibbara tax mu dal daawuda bàyyi sulay ba yaasin mu fab serom ba fent ca weñ gi ñuulam ba fab di xalifatan ngir ga yaasin tero taalama ca teex bala jox suleymaan mu def jaaru mu def ko jaaro ñaan mul ko ba yaasin ci barkeb jaala jinne ak njanaaw yi di toppe sulay mu war ci ngelaw ba yaasin terop taaram bala maam ña xobu tuufa bëgg di ne bàq daana paramtu yaasin terop taaram bala yuusufa doom ja sël moo fa jawara usni mooy taaru yaasin terop taaram ba moo la joroon selixa ba muy pañu yuusu ngir jaalo fa yaasin waxanaalaan ko dem leen seeti mawleen jamaalan min jamaali leer yaasin seeti mawleen جمالا من جمال الإرهاز جمالا رجل لله يا جمالا من جمال الأرياف جمالا من جمال الأرياف la Ismaïla taaroo ba fooxu na doomi taaree ngir ga yaasin serob taaram ba wel na maaw sam-sam keroog ba fa isma juddoo ngir ga yaasin serob taaram ba loroog isaaqa mbokkam ba israila far xeeb maami yaasin terob saa serob taar terub saayir saayir sa lañ fab ndox ma tuur leen terub saayir sa lañ fab ndox ma tuur leen mu roy loo leen ba far nañu noonu yaasin tirub taaram ba ca teex ba la sànni yoonus ca banul uuti muy sabaale yaasin ci barke jàlla da wax laa ilaa ci biiru jënoo ilaa anta yaasin waxtaan ko dem leen seeti ma jamaalan min jamaali leer yaasin seeti mawli jamalan min jamaali leer yaasin جمالا من جمال الأرياز جمالا من جمال الأرياز جمالا من جمال الأرياز جمالا من جمال الأرياز جمالا من جمال الأرياز ci teex ba la sànni yoonus ci barnul huuti muy sabaale yaasin ci barkeb jaal la daa wax laa ilaha jibril janwa ilaa anta yaasin terab taaram la jox idrisa waayam ba moo jëkk bind jëkk duru fa yaasin ci barkeb jaal la dëgg banax boroomam ba def bi dem fir ba dem firdaw si faf nanu góose yaasin ci barkeb jaal la dëgg banax boroomam ba dem firdaw si ko dem leen seeti mawdi جمالا من جمال الرياض يا مولاي جمالا من جمال الرياض جمالا من جمال الرياض جمالا من جمال الرياض ci barkeb jaal la dëgg ba nax boroomam ba dem firdaw si fam nanu góor fa yaasin terub taaram ba terub taaram la jox lootul mu rangoo ba war ba di suuf si kan xaanan fa yaasin ba aliya di saafila ña ngay ser mu taw aw doj ci seeni kaw fa yaasin terub taaram ba ci teex ba la sotti eese mu ay asamaaw rafoonaaw yaasin wa maa xataloo wa maa salaboo walaakin la yàlla wax ca eesa ngir ga yaasin wa maa xataloo wa maa salaboo walaakin la yàlla waxoon te saa ngir gaayaase walakin la yàlla waxoon te saa ngir saboo walaakin walaakin la yàlla waxoon te saa ngir gaayaase
maa kala boo tey walaakin walaakin la yàlla waxoon te saa ngeen ya aayaa wa maa xataloo wa maa salaboo walaakin walaakin.
la yàlla waxoon te saa ngir gaayaase
maa walaakin walaakin la yàlla waxoon te saa ngeen ya aayaa ما طلبوا ولكن لا يلا وخون تيسا نرجع يا زين. وما طلبوا tey walaakin ولكن la yàlla waxoon te saa ngeen ya aayaa وما قتلوا وما طلبوا ولكن لا يلا وخون تيسا نرجع يا زين. serop taalam la saaliw dóor ci aw doj gële na ci tëll gëne di ngaa xayaasin ku daara ko rey fadam dama neel alayhim musiba du yem ci bopp borom fa yaasin ku daara ko rey fadam dama neel alayhim musiba du yem ci bopp borom fa yaasin serop taalam la huudun huudun jappe haadan ala gaayama folli xirmi yaasin ci barkeb jaal la iliyaasa ki maasam wasal kibli liman ya say ba yaasin ci barkeb jaal la iliyaasa ki maasam wasal kibli liman ya say ba yaasin wa maa xadaloo wa maa salaboo tey walaakin walaakin la yàlla waxoon te isa ngir ga yaase walaakin wa maa xadaloo wa maa salaboo walaakin la yàlla waxoon te isa ngir ga yaase wa maa xadaloo wa maa salaboo walaakin la yàlla waxoon te saa ngir ga yaase walaakin la yàlla wa maa xataloo wa maa salaboo walaakin la yàlla waxoon te saa ngir ga yaase walaakin la yàlla
Yeah. jóg leen jee ak lu moosa moo tax jóge moosa ba ma ñu tan ne ase Yàlla mulku man na sagar jee su ko wala na way ñi ree ñi dox di taale te seen baay sax seen lu baa seen bayaase loolu araamul oo sumbe ay coonaan gumbay galaari sax di palam tooyaase réew joodaan gumbay galaari sax di palam tooyaase ngalam jaabon ne kon jaa il du taalif ndaka leeroon la yab yaa caar ba yaase yel joodaan bu may nagalaari darbe balam walaay na maan jooru ñaloo dangan xanaa dafa reeb paam dafa reere yaase ñaloor gu dangan sëriñam dafay na nga jégga fanaar gisee su ko mbar fa yaase Paduwaadoo murid buy doo araamul ku mën na koo daar si dee su ko woor na yaase ku xam bay way nafar way ngën ji yoon ndegam xam-xam bale la basar ca yaase loolu araamul sëriñ Tuuba ni man sama jeer gi may way du déglu géwal bu xol ba setul ba yaase géer gi may way sëriñ Tuuba ni kuy taalif na taalif ca saaba ya maa ci walliyu maa ci yaasin maa bu taale ku way taa wayooy ci saaba ya maa ci waayoon arab ya nga waye dangeen ko la yooba yaade wajaaya ci sa daa bay mbaa ci waayam arab ya looy dañ ko la fa yaasin nda yeneen def ne waa ji ma tagg ak way ne wàllu naa la ajjana faw yaasin li lee tax man ma di géwalam ci baatin di way Cheikh Bamba mbërum juutu yaasin borom taar boobu moo ma jar di taal di tuur di tuuru ngi li mu doon na yaasin salaat naa rabbu wa kalaani laamin leel naa ban ba maa ngi la fa yaasin ku la jaay jaay na sam xel dem ci yaasin kataaro ba yàlla yónni ko saaro yaa de kule yaajar na som kal dem ci taaha wa taayro ak mutaaro ak yaade na som kal dem ci yaade kule yaajar na som kal dem ci maa ka forbaakaar ya ko kale moodu yaade kule jaajar na sam xel dem ci maa kafar ba kaar ya ko xemood yaade kula yaay na sam xalam ci haadin ka gindi samaami réere walla yaasin ku lay jaay taar na sam xalam ci noorul siraajillaahi lampu gas ba yaasin ku lay jaay taar na sam xalam ci muxtaar bi yàlla ne Mustafa ma ñu tan na yaasin ku lay jaay taar na sam xalam ci yaasin imaamu mursali ne kiré bi yaasin Muhammadu mooy kiram wa ñu sant baayam bu Amidou Mbaate Amidou Mbaate yaasin te Ahmadu moo di rahmatuna ci baatin te Amidou moo di nimatuna ba yaasin turam yi ci des dañoo lamboo ci maxnaa li mu xeetami ci xéewal ba yaasin turam yi leen mat na ñaari téeméeri wa idee yër man daraayul xayraat yaasin bari tur daana tëkkale mbar ci maxnaa te mais mbar kente gaale kootu yaasin nit ak jinne ak malaaka ñëpp a raamoon ci malustu jëbbal naa ko yaasin ñi doom rafet boo ko koy ngan ji yaasin amul ci arab xuraysin xam na yaasin koy ngeen ji aasi amul jaaraab xuray seen xam naa aasi ngeen yaasi ne yaaram doomi yaaram doomi yaaram sa domagaag madina kileed yaaram jenn yaaram sa domagaag madina nde maamam yàgg doomi sa doom xuray sin ña nga caaroo ca taar taaro yaasin su ngeen dégloo ma limte imaam yi yaasin te wax leen taar ba kenn du fi mel ni yaasin su ngeen dégloo ma limte imaam yi yaasin te wax leen taar ba kenn du fi mel ni yaasin muhammadu naja abdoulahi al aasi wa abdul manaf daal li mu yéer yaasin danaan la bayka naan la bayka jéeran ci ndigal maam jaas kay moom a yaasin xuseyna kilaab yaare maamaw mu rata seen taara nga mel ni yaasin wa këhëbun ak lu weñ teg ca xaalit ña ngay taaroo ca taaru taaru yaasin wa féerun teg ca maalik teg ca nadrun ña ngay safi jant ngir cee ñeer yaasin ki naana ta aqusemati ñaari maam ñi lee di weer ya daa weer loo fa yaasin wa mudrikatun wa Iliyaasu wa Mudrun te seeni kanam la leer ga newoon fa yaasin nisaarun daat ca mahdin góor gu sempal li mal àddina na fii la ñu yem fa yaasin ca mahdin góor gu sempal góor gu sempal li mal àddina na fii la ñu yem رسول الله لما الأدنان في لم ينفع هذا لما الأدنان رسول الله لما الأدنان في لم ينفع هذا لما الأدنان في لم ينفع لما الأدنان أنا فيه ينبع عادل لما عدنا لما الأدنى أنا فيه لن ينفع عادل لما الأدنى ميلي يا سلام اللي ميلي باطن ñu jàpp ca leer yoon nen ñoo di yaasin serab taaram ba moo leen sóor ba duñu mooy ba noo aasin sëriñ la nu ngir ga yaasin ma wax leen tey ni yaasin met ci saar ba tudd fi ngeen yi mindeef tudd fi yaasin sangub yoon nen ya mooy yaasin ci baatin jagam nga ca moom mindeef du ko am fa yaasin wa innaka teg alaa xuraxil asimi la yàlla wax ca sóortu noonu fa yaasin walan tara xatlu ay ni ni fa yaasin bi xalqin aw bi xolxin kenn du yaasin jukkoom dafa yéeme binda mbaraw na am xel كمالا أو جمالا كم ياسين لقد فاق الخلائق نما قلقا وقلقا مسلام يتل ياسين بالحاصل الكرم يا جف مسمفل قوم بكمول بكون اتكا يا زين مسمفل قوم بكمول selam ka kuloor ka moo xëy sa baay rakk fii kenn du fi mel ne yaaseen selam ba ka moo selam ka kuloor moo xëy sa baay rakk fii kenn du fi mel ne yaaseen tegam ka moo sam ka kuloor ka moo xëy sa baay rakk fi kenn fi mel na yaade moo xëy tëgg mool sëlëm ko kulóor ko moo xëy tabaaraka fii kenn mel ni yaasin guddul ba ni seetlu waaju ko seeni ceykaa deful ab duñ ma tax nga ne campa yaasin réyul ni fëtëx ne gaa yi dox di fangat di fangat ba mel ni maami tugal fa yaasin wowul ba ne koŋ tew yaramam du laal weñ tewul ba ne lamax ak ju fa yaasin di saf kumba liiti tew ba ne ruñ ca sooful ñeent xasab bi mooy taxawaaye yaasin ku langoog moom musu la ca ko nga di duuñ ku topp ci moom raw la nga def fa yaasin di sax ku mbaliti sew baniru ca sooful ñeenanta xasaab du moo taxawa yaasin di sax ku mbaliti sew baniru ca sooful ca sooful ñeenanta xasaab du moo taxawa gisat ku ba lii di sew ba niru ca sooful ñeneen to xasab du moo taxawaay yaasin ku làngoog moom mu sut la ca kaw nga di duuñ ku topp ci moomu raw la nga des fa yaasin doxin wa ñu def ci ramatu lay sukkootoo doxin wa ñu def ci ramatu lay sukkootoo ca tempu mbaa la daa daagoo fa yaasin lexem yu salab ya loxoom yu salab yu sell ya yàlla fu dem loxoom yu salab yu sell ya yàlla fu dem te waaraam yi niroog soorooru yaasin weem yene wer mel ni bitim yi tëj te joro ba ko poose moo mën a ñaw fa yaasin te yonen dooxul woon wangul woon te sëbul foro xoli gonne mel ni ku noonu yaasin wetam dafa njande bindam sew mu xeereer lasul nuujul lexe bi ne lacce yaasin ndigam na ne xiit ndigal tama lañ ko moolal ndigam na ne xiit ndigal tama lañ ko moolal te doxam daf yónni mbar fa yaasin te xar kanam ba day sa féeru badrin jéem woon deelu fat di mar a fa yaasin bakkan ma ne fon mel ni nataal ba ndar wër tuñam yi di saf buti yi ni ferme yaasin du tëbli bi suuf du ñend du génne aw ban te lu ma sa génne suuf ni tërëx fa yaasin ñaxawaa daaya sikki ka daaq an mbar keraw kaa booy gungun gungun jaaga yaase an ba keraw kaa booy gungun gungun jaaga yaase yaqawa daaq sikita daaq an bal keraw kaa booy gungun gungun jaaga yaase yaqawa daaq sikita jaxambar teraw gaafooy gungun gungun jaang ñaxaawa daaq sikki ta daaq ambar teraw gaafooy gungun gungun jaang yaade jaxambar teraw gaafooy gungun Rasulullah teraw gaaboor bun bun bun bun jaana yaade teraw gaaboor bun bun bun bun jaana yaade Rasulullah teraw gaaboor bun bun bun bun jaana yaade teraw gaaboor bun bun bun bun jaana yaade Rasulullah teraw gaaboor bun bun bun bun jaana yaade teraw gaaboor ñaka waa dàq sikki te dàqal bar te rew kaa boore bun bun jànga yaasin lanam yaa dàq suukar dàq ak lem te neexane dàq te weexani soofa yaasin gëñam yedi saf kay jiima tiim di melxat ba ñam yedi saf kay jiima tiim di melxat walaay gàcceel nga perkaal bii fa yaasin bu mas ne kàngaree yow nga ne koŋ tey say su muuñee muy melax di melax fa yaasin te sakkala yàlla way sàmmandaay palanteer bu mel ni ki yor gu tool si galaatu yaasin njamal yàlla la ànd ak jàllu yàlla la yaasin judduwaal du maatu yaasin kawar gane laas di saf tooy ba ma gis fa bànjul di mel mel ni njeeñ la mel ni wurus fa yaasin te faasam yaa ngi mel ni wurus wu deewul di leer leeri tey bi teen ñu ko kaara yaasin loxam yu rattax ya lexam yu rattax ya mel ni ki ay feer yu ñuy diw te yéene ni lipp mel ni ki yor fa yaasin gëtam yaa ngay wëndeelu ilaa jaatee ba mel ni ki moolu dollar wul fa yaasin bëtam ba ne bàq per ba ne saf ne no baa bëtam ba ne bàq per ba ne saf ne no baa te moo gën a gis borom li bi yére fa yaasin di xool kanamam te gët yeey gis gannaaw am- amul takk ndee da taar baa leer fa yaasin suba yeey gam gamee ki nelaw ci saar xorom ma di xool kenn du mel ni yaasin ca tusngale ajjanaam la ko yàlla tusngal salam ko ca sal sabile talaa ko yaasin te kersa ga daana tax suy xool di lam sal danaa wax ndànk tey dox ndànk yaasin barul dërul nosul dotamul te taqul te leebul lamiñam dafa wér fa yaasin jaw yaa joo te nga ngam yaa gannaawam ñu tampe jaxaati mu yonnel ba yaasin yaa gannaawam ñu tampe jaxaati mu yonnel ba yaasin kenn ku fi
Al-Wazir بشيرا هدى الغادر